tontu Ousmane Sonko parce que tey dafa génn di traiter les sénégalais d'indisciplinés tey Sénégal fii il faut mu xam ne ay moroomu baayam ñoo fi nekk ak ay moroomu yaayam Sénégal dafa am ay kilifa diine am ay kilifa aada nit ki booy politique mun nga def politique mais nga am politique boo xam ne day ànd ak yar ak teggin mun loo taxaw saaga sénégalais yépp taxaw di traiter les sénégalais d'indisciplinés beneen bi toog gis nañ ko ci ay vidéo mu taxaw ni moom deetul dellu màkk parce que foofu ay woyu ñoo fa nekk. tey ji kon kooku mënul taxaw di wax ci ay affaire u jàkka ak ay leneen il faut que nit ñi comprendre ni période bi ñu toll nii période pandémie lañ nekk dëgg président bi jël na ay décision yoo xam ni c'est l'homme le plus renseigné du pays bu demee ba jël yenn yi yenn décisions yi ça veut dire que ni seet na ko seetaantal la ko mais tey jii da ngay génn wax ba sonn pour ne rien dire parce que tey jii tolluwuñu foo xam ni dañuy politique instant bi fi ñu toll mooy dafa am lu xew ci àddina bi même dans tous les pays du monde kenn gisul kenn mu taxaw di ŋàññe dara donc son ko encore une fois nit day yaru seen aafiya nit ñi tamit joxe cër am yar ak teggin xam fan la ñuy jaaye ak fu ñu warul jaaye wasalaam merci